jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokku Sénégal ginnaaw bi ñuy jiitalee si nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit di ko ñaanal mu yàgg fi lool ba naal yi mu liggéeyee ne liggéeyal maam mu def ko ni mu ko bëggee di nuyu waa àdduna bi yëpp surtout nag waa département Mbacké bi ñu dëkk waaye rawatina waa coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom la ñu bokk bu ma présenté woo man la Cheikh mbay di responsable jeune bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar boo ko parti APR bokk ci jeunes yi nga xam ne militant première heure lañ ne mën nañ koo wooyee ak suma naataango yi ma nekkal fii yëpp waaye tamit bu ma gisee Moustapha Messere mii sama ginnaaw sama xel day daal dem si parti allié yi nga xam ne yëpp moom lañu ñu bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw fii tey nag ngir benn mbir moo xam ne mën naa bañ a gudd daanaka mën nañ koo gàttal du ñu chercher de gauche à droite dañuy bës directement fi yëf yi di méttee li ñu fi indi du kenn kudul ki ñu naan Ousmane Sonko muy monsieur Yolom Gagnon ndax dañoo dëkk ci département bi doon ay jeunes yuy jàppale président Macky Sall waaye doon tamit ay murit yu wér ñu gis concurrence bi nga xam ne moom lay lal suñu diggante diggante moom ak ñi nga xam ne mooy suñuy kilifa bu nu wootee màggal mu ne day woote màggal bu ñuy laaj àddiya mu ne day laaj àddiya buñ nañ leen ay sëriñ mu ne moom Seydina mu sell mi moog waa këram loolu nag métti ñu ñu ñëw taxaw nag bëgg a défendre suñu bopp défendre suñu bopp boobu nag défendre yoon wi ni ñu koy defee mooy le 10 bii di ñëw ñu am manifestation bu mag bu ñuy woote Mbàkke boulevard Ndoyeen à partir de 15 heures Serigne Modou Mbàkke Bara Dolly ñu ngi koy nuyu de passage dugal na fa mu war a jaar ngir parti bi am autorisation dem def manifestation muy meeting bu ñu war a def Mbàkke le 10 à partir de 11 heures à partir de 15 heures ñoom nag for nañ si weewu bay ne ñoom tamit dañuy dem meeting amul problème bu leen neexee nañu waaj dem meeting waaye ñun ñi nga xam ne ñoo bokk coalition benn Bokk Yaakaar ñun ndaw ñi nga xam ne ñooy jàppal tànk président Macky Sall ñu ngi koy wax autorité yi nekk ci réew mi yëpp kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp que ne Ousmane Sonko ak waa këram newuñu du ñu mitini Mbàkke de waaye ñun tamit mënuñ ñoo téye mitini yi Mbàkke te lu mu laaj nañ ko def si une fois ñu autoriser leen ñoom seen manifestation ñun ñu bañ ñu autoriser suñu manifestation nanu xam ne ñoom bis bu nuy mitini si suñu kaw la ñuy jaar wala ñu jaar seen kaw gatsa gatsa gi ñuy woote fii na war a tàmbalee muy departement Mbacké ñun on est prêt lu mu laaj dinañ ko def ndagam moom Ousmane Sonko moo mën a taxaw ne day jaay bakkanam président Macky Sall ñun ñi nga xam ne président Macky Sall la ñuy jàppale gis ko muy liggéey liggéey bu rëy si réew mi. réew mi fa mu nekkoon ba mu koy jël en 2012 ak fi mu nekk nii wuute trop du ñu nangu kenn koo xam ne da ngay dem Sweet Beauté di bës lu bëgg yàq sunu réew du ko def du may tey du ko ko may ëllëg. le diis bii di ñëw incha allahu rabbi Benno Bokk Yaakaar dinañ dem Mbàkke dinañ def sunu meeting lu mu laaj dinañ ko def amul lenn lu ñu koy may tey amul lenn lu ñu koy may ëllëg moo képp ku koy jàppal tànk wasalaam. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki journaliste yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa population département Mbàkke gépp rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar man ma ñëw fi alliés yi parce que maa ngi bokk ci parti réew mi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar di waaj aussi bis boo xam ne dama bokkoon ñi demoon def demande autorisation ci kanamu préfet muy muy meeting boo xam ne dañ ko war a def vendredi le 10 incha allah fële ci boulevard Ndoyeen àndoon ak sëriñ Modou Bara Doli ak Bachirou Diagne ñoom général Pape Niass mi jiite conseil communal de la jeunesse ñu dem def demande boo xam ne dañoo bëgg ñu autoriser ñu ko pour ñu mën a def suñu mobilisation meeting de. Euh, meeting boo xam dañ ko bëgg def pour investiture président de la république Macky Sall loolu nag mel na ne ay coow mi ngi ciy bëgg a juddu parce que nee nañu waa yeewi askan war nañ fee def meeting loolu nag li ñuy lancé appel mooy Touba dafa sësaloo ak Mbàkke te ñun jàmm la ñuy woote kon ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko te fu mu mas a jaar rek indi fa fitna ñi ngi alerté ñi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbàkke rawatina kilifa diine yi ñu wan leen ne leen ñun jàmm lañ woote jàmm ji mooy dañoo am sañ-sañu woote meeting pour jàppale suñu leader niñ ko defee ñoom Kër Massar ñun noonu lañ am sañ-sañu defe ko département Mbacké léegi nag li ci des mooy ñun pare nañ pour lépp jant buñ leen autorisé ñun te xañ ñu suñu mitin nañu xam ne bu boobaa na état jël ay responsabilité xam ne lu mu gis ci suñu kaw lay jaar loolu moom mbéye boo ñu teel cee xam ne duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg di ci woo mbooleem jeunesse républicain bi ak waa coalition benn bokk yaakaar ci ñetti département yi mooy département Diourbel département ak département Mbacké mbooleem ku bokk ci coalition benn bokk yaakaar ñi ngi lay woo vendredi incha allah le 10 ci terrain bi nga fële nga xam ne mooy boulevard Ndoyeen ci Mbàkke Bawol incha allah ñi ngi ci woo ñëpp ñu ñëw ci jàmm aussi ñu dellu ci jàmm di tàll loxo aussi mboolem ñi nga xam ne ñooy leader yi ci département bi yëpp ñoo xam ne bis bi seen bis la ñun ndaw ñi dañoo ñëw ngir organiser ko rek waaye li ñuy def lépp ñoom lañ ñu koy defal jërëjëf ku mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di nuyu suñu mbokk journalistes yi fi teew ñëpp di nuyu suñu mbokk jigéen ñi fi teew ak suñu càmme ñi fi dajal ñëpp di wax ni wax ngeen wax bi yëpp muy Cheikh Mbaye ak euh, Moustapha Messere euh, di wax rek dañu ñëw rek pour alerter jàkkaarloog autorités yi nga xamante ni si ñoom ñoo yore suñu kaaraange fii ci réew mi ñu di leen wax ni leen euh, waa Pastef man du ma wax yeewi askan wi Pastef laay wax muy Ousmane Sonko ñoom dañu dugal seen seen autori seen demande autorisation kenn ñoom dañuy mitin Mbàkke le 10 incha allah vendredi ñun tamit sëñ Modou Bara Dolly ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom it mu mu mu dugal autorisation pour meeting le 10 vendredi incha allahu rabbi ñun nag lenn la ñuy wax préfet ak autorités yi nga xam ni ñu ngi ñuy dégg suñu autorisé Ousmane Sonko mu meeting Mbacké ci autorisé wuñu na leer autorités yi que ni Ousmane Sonko buy dugg biir Mbacké ci suñuy néew lay jaar ci suñu deret lay xuus pour accéder biir Mbacké ñu koy waxaat tam ni ko ñu koy waxaat tam ni ko moom. na xam ne wut siwul ci département bi dara ku respecté wul sëñ Muntaxa faalewul sëñ Muntaxa nawloowul sëñ Muntaxa kooku warut a dugg ci département bi waruñu ko seetaan muy dugg ci département bi na xam ni ñun ay taalibe lañ te ci taalibe la ñuy dee na ko leer ni lépp lum ko jaral pour diir mbagg suñu kilifa gii di sëñ Muntaxa mu Rasuul na ko leer ni ñun pare nañ pour jàkkaarloog moom lépp lum ko jaral nag pare nañ ñun tamit pour pour defante ko ak moom. na xam xam ni Mbàkke ak Touba benn la. mënul tooñ sëñ Muntaxa àddina yëpp teg ci bët mu taxaw fële ca euh, Kër Masaar taxaw ni sëñ taxaa juróomi weer a ngi nii may ut pour bëgg ko gis mu tëjal may buntam ki ki nga xam ne moo ni ab sëriñam la moom moo ni ci ab sëriñam la ci moom la jébbalu mu dem ca sëñ taxaa di ko tuubali ji sëñ taxaa xamal ko ni ko tooñ na ma nee ko na bàyyi tooñ ku tooñ nag da ngay tuub da ngay baalu ñu ni ko demal poroxaan nga dem tuubi ji mu taxaw bañ ne xalaatula la seq tànkam pour dem fekk sañ mu Muntaxa ñeen ñëpp a gis jour màggalu xaan mu nekk ci mbeddi ndakaaru yi naan damay football ca demul poroxaan ñu jógee poroxaan teguñu ci cinq euh, une semaine mu ni moom day def meeting fii Mbàkke Bawal ñu tegaat ñu war ci tegaat une semaine pour jëm ci màggalu Serigne Fàllu mu ni moom day def meeting ndax lan deful meeting pour lenn pour wan sëñ Muntaxa ni ko dinaa dugg ci département bi jàkkaarloog say taalibe am fi li nga fi am ca duma jaar ci yow ca loolu nag buñ loolu duñ ko accepté duñ ko ko may tey duñ ko ko may ëllëg ñun ndawi Benno Bokk Yaakaar ñun ndawi APR na leen leer na leen leer ni pare nañ joxe suñu bakkan moom def na testament ñun def nañ suñu testament tàggu na ay wéyjuram ñun tàggu nañ suñuy wéyjur euh, dénkaane suñu njaboot fay suñuy bor jël suñu bakkan bi jox ko xaadimul xaddim moom bakkanam joxe na ko ci njaalo bakkanam joxe na ko ci njaalo ndax def na la muy def la ko topp topp ko mu ni moom day joxe bakkanam ngir li ñu war a teg ci kawam duñ ko ci teg ñun nag suñu bakkan bi dañ ko jox Cheikhul Khadim ndax suñuy weejur dafa toppoon Serigne Touba suñuy maam topp Serigne Touba ba léegi ñun dañuy topp Serigne Touba képp koo xam ni nag yaa ngi wuyoo Mbàkke topp ci ginnaaw Ousmane Sonko ngir lan poña xitum àddina moo la ca ñor ngir ndam ëllëg kooku yow la engagé ñun taalibey Serigne Touba suñuy suñuy bàyyi santul Mbàkke de suñuy maam santul Mbàkke waaye nag suñuy Serigne Touba defar suñuy maam Ousmane Sonko bu bëggee toppandoo sëñ taxa na baayam dem jaari ji fa sëñ Muntaxa sa sa Cheikhul Khadim jaaran wala ay maamam jaari fa Cheikhul Khadim jaaran munta am ci àddina ca dootul am Serigne Touba kenn la ci kaw suuf dootul ñaar dootul ñett na xam loolu murit gi benn la dañ koy respecté su ko mënut a respecté moom na xool neneen nu mu def waaye du ñëw Touba du ñu fontoo bari ki dem kenn ku ne gis na euh, bi ñu immigré université bi gisoo leen fi tànkam gisoo leen fi ndawam dëggu fi tànkam léegi nag kooku noonu moo bëgg a ñëw Touba dajale taalibey Serigne Touba ni dafiy def mitin na ko leer ni bu duggee biir Touba ci suñu deret lay xuus ci suñu néew lay jaar doo a mën a def mitinam wasalaam jërë ngeen jëf